للنووي وابن رجب رحمهما الله جميعا والشيخ العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد البدر حفظه الله تعالى مملني بمويس من يقتل بجتاي نونغوون جاء حديث بنغا خمني موي الحديث الأول تموي حديث بو بنغا خمني omar ibnu alxatab moo ko jàngee ci yonant bi alayhi salaatu wassalaam te muy xadiitu innama al acmalu binniyaati baaxug jëf yi wérug jëf yi nanguug jëf yi ña nga aju ma ngay ña ngay dellu ci yéene yi ko lal wa innama li kulli mriin ma nawa ñeel na jëmm ju nekk jëmm ju ne dana am dana ko ñeel ci ay jëfam la mu yéene fa man kaanat hijratuhu ila wa rasulihi képp koo xam ni de gàddaayam ga yéene ja mooy gàddaay jëm ci boroomam daf ngërmandeg boroomam gàddaay jëm ca fa yonant ba aleyhi salaatu wasalaam nekk ànd ak moom ne ca wetam mu ne fa hijratuhu ilallahi wa rasuli kon kooko am na ca gàddaayam googee mu gàddaay yéena bu tol noonu yéena bu mel noonu te muy yéena ji jëm ci allah subhanahu wa taala ci dab ngarmandeem def digalam gaddayi jëm ci yonante bi alayhi salatu wasalam necawetam àndandoo ak moom wa man kanat hijratuhu li dunia yusibuha waaye képp koo xam ni sa gàddaay yéene jë mooy àdduna boo bëgg a jot maanaam poñetu àdduna boo xam ni da nga koo bëgg a jot aw imraatin yankixuha wala soxna soo xam ni danga koo bëgg a takk fa hijratuhu ila ma haajara ilay koo ko yeddee la muy am mooy la tax mu gàddaay loolee ko yëkkati muy xadis boo xam ni waroom xam-xam yi dañoo dëppoo waroom xam-xami xadis yi nag dañoo dëppoo ci wérub xadis bi buxaari ak muslim dëppoo ci génnee ko muy xadis boo xam nii gisoon nañ ko ca bind bee weesu tolluwaayu xadis bi dayo bi mu am li nga xam nii fóore yi muy fóore xadis yi di kàngami xadis yi di waroom xam-xam yu mag yi ci wàllu xadis maa lañ ca àddu ci dayo ak tolluwaayu xadis bile bu ko defee kon nu tàmbalee dugg ca la nga xam ni mooy li xadis bi ëmb loola kon day daldi tolloog ñeenteelu xaaj ba mu ne qawluhu innama al bi binniyaati innama adaatu xasrin wal al alif laam الألف واللام في الأعمال قيل إنها خاصة بالقرى وقيل إنها للعموم في كل عمل فما كان منها قربة أثيب عليه فائله وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة منكن إنما الأعمال كدوغوغي وهو ينتبه عليه الصلاة والسلام إنما لولا جمت وايو تنكلا ci li nga xam ne mooy làkku arab innama dañ koy jëfandikoo ma ngoog di ci tënk dara mu ne alif ak laam ga nag ba nekk ci al amal maanaam soo ne innama al amalu al amal dafa am alif laam mu ne waxees na ni loolu des koo jagleel mbir yi nga xam ni ay mbiru jotal jotu la maanaam ya ñuy jegeñ jegeñ loo borom bi jàlla waala mu ne waxees na ni tamit déedéet waaye dafa doon loo xam ni dafa waabale lépp lu général la la nga xam ni nag nekk na ca ci ay mbir ya nga xam ni ay mbiru jotu la <clears throat> dees na ko ca fay ya nga xam ni nag <clears throat> ca jëf yooyu du ay mbiru jotu waaye ay mbiru aada la lu mel ni lekk naan nelaw mu ne yooyu moom bu fekkee boroomam jiital na ci yéene yi dëgër looloo la ngir tokk boroomam mango bees na ko ca fay maanaam al amal al amal mooy jëf yi jëf yooyu kon da ciy dugg jëf yi nga xam ni dees koy jegeñ jegeñ loo di ko jaamoo borom bi jàlla waala ma ngoog am nañu ne ci loolu rek la yam ma ngoog al am nañu ne déedéet yamu ca waaye mboolem jëf yépp a ciy dugg lépp loo xam ne jëf la rekk la ciy dugg moo xam jëf jooju dafa bokk ci ya ñuy tuddee ay ibaadaat ay ibaadaat moo xam ya ñuy tuddee ay aadaat maa ngoog te xam ngeen jëfi ibaadaat yi am na jëfi biir ak jëfi biti ma ngoom jëfi biir ak jëfi biti hakada kon al amal dafa làmboo mbooleem jëf yëpp moo xam ay ibaadaat la moo xam ay aadaat la ma ngoom moo xam ay ibaadaat la moo xam ay aadaat la moo tax boo xoolee gaaña gaañu baax ñi mako salafu saalix ñoom déggin boobu lañ ci amoon noona lañ ko doon jëfee ma ngo moo tax nga gis ku mel ni moaz bun jabal fóore bu mag boobee moaz bun jabal di saxaaba ma ngo bokk ci ndongo yi yonant bi aleyhi salaatu salaam da doon wax naan inni la axtasibu nawmati kama axtasibu qawmati man de samay jëf yi nga xam ni ay jëfi aada la mel ni ay nelaw ak yu ni demee mu ne yooyee de dama cay yéene ci yaakaar yool fa sama boroom ni may yéenee aka yaakaar yool ci samay jaam taxaw yi may taxaw di ko taxaw guddi di julli ak nelaw ya yooyu yëpp laay waabale généraliser ko lal ko ci yéene joo xam ni yéene ju rafet la ma lal ko ci yéene joo xamante ni nii yéene ju rafet la yéene mooy lan yéene lugatan mooy alqasd sharan mooy al azm ala fi'li al ibadati taqarruban ila allahi jalla wa ala lugatan ci blak yéene mooy jublu alqasd mooy jublu شرعا موي دوغو العزم دوغو ديال ديسيجن فيرم على فعل العبادة تي جف تي جوخي جامو غوغو غاي تاخاوي وخم جولي لا ولا كور ولا اجماك ولا سرخه جيس تقربا الى الله جل وعلا ديكو جيغن جيغن لو سا gis nga màngoro moo tax mu junjal la fii loola mooy yéene bi ngay yéene ci ibaadaat waaye bu fekkente ne nag yow fa nga bëgg dugal yéene bi pour mën caa am yool ay mbiri aadaat la moo tax mu ne loolee dees na ca fay boroomam bu fekkee dafa yéene ci mbiru aada boobee moo xam lekk la wala naan wala nelaw wala lu mën di doon lam ca yéene mooy lii maa ngi koy def ngir lan dëgërloo ko ngir mën a taxaw jaamu sama borom ma say nelaw ngay nelaw sa yéene ja nga ci nelaw yi doon naa nelaw bu ko defee ma mën a woyof récupérer bu waxtu julli jotee mu mën a taxaw jaamu sama borom moo xam guddi gi wala bëccëg bi kazalika lekk gi la lekk pour mën a am kàttanu jaamu sa borom ci togg gaag loolee lépp ma ngoog mboole mbir yi nga xam ni ay aadaat la muy habitude yi nga xam ni doomu aadama da koy def lekkam ak naanam ak tëddam ak gis nga ko ak yu demee noonu bu fekkee kon da koo tabax ci yéene ji wajee ma ngoog loola de da cee am yool loolu moo taxoon Cheikh Ousaymin doon wax naan ibadat ahlil ghafla aadat wa aadaatu ahlil yaqba ibaadaat mu ne jaamu woy sàggan ya ñoom seen jaamu habitude la ñi nga xam ne dañoo sàggan duñu sax istixdaar niya mooy lan teewal yéene ji teewlu yéene ji ci jaamu ga ñuy def ñoom sàggan nañ ba dañuy dikk rek fil yéene fële maanaam fil teewal ka istihdaar gi teewal yéene gi teewlu ga nga koy teewlu gis nga ma fexe sellal ko teewul yéene gi teewal yéene gi fexe yéene ga doon fexe yéene ga doon التقرب ila allahi jalla wa ala ca loola ngay joxe mooy ibaada boobu ngay def julli googu ngay def gis nga ndax yenn ci warom xam-xam ne ñuy wax ne jëf moom kenn xalaatul mu doon jëf ju ñu jëf te àndut ak yéene gis nga ba ñenn ñi àggoon sax di wax naan a ah, sunu borom de bu nu gàlloon muy jëf jëf yoo xam ni àndut ak yéene loola dana doon loo xamante ni nii lu diis lay doon kon lu waay di def rek am na ci yéene intention dugg na léegi nag déterminer intention boobu ndax bu baax bi la walla baaxul loola ca istixdaar ga la ca teewlu ga la ca teewal ga la ma xam ni ni yéene ga danga koy orienté fa nga xamante ni nii fa la yéene ju baax di orienté wu te mooy al azm ala fi'li al ala xam ne yow doo dikk rek daa di sóobu noonu ci jaamu moo tax boo xoolee boo xoolee yéene jaamu xeetu jaamu yëpp dañ koy indi teg ko ci bunt bi ango dañ koy indi teg ko ci bunt bi boole ko ci ya nga xam ne ay chart la ci jaamu bi ma ngoog boole ko ci ya nga xam ni ay charte lañu ci jaamu gi mu nekkoon kon jaamoo ko sàggan yi nga xam ni ñoom duñu bàyyi xel yéene duñu teewal yéene ga duñu sellal yéene ga gis nga ba ngaaw moo tax ngay dégg ñu naan la Sufyaan as daan na wax naan xeexumaat góor góorgóorluwuma ci sama bakkan ci anam gu gën a tar na may sonne ci moom ci yéene xoolal foofu kon na mu koy wone effort ya muy def combat ba muy def pour la mën a noot bakkanam ba taxaw ci sellal yéeneem sellal yéenéem gis nga ma sellal yéenéem loolu ku am yaqda moo koy bàyyi xel ku éveillé wu al yaqda mooy l'éveil éveil spirituel nga am éveil ci diina bil ilm al loolu nag ñu ngi koy atteindre niveau la boo xam nit da koy atteindre ci xam-xamu sharia la koy atteindre bil ilmi wal iman gis nga ma kon ki sàggan moom yooyu yépp kon du koy bàyyi xel moom daal jëf ji la ko ca ñor mooy defin wi ci biti julli jot na mu dikk kàbbaak sëgg siggi sëlmal right aspect extérieur bi kepp gis nga nangul gaag sellal gaag yéene gu sell gaag toroxlu gaag gis nga ko dundal julli gaag ruuxu julli gi loolee lépp moom yitteelu moom daal maadaama waxtu wi jot na daal lam doon def bàyyi na ko dikk na sëgg na siggi sëlmal mu ne waaye ña nga xam ni nag ñooy ñoñ yeewute maanaam ñi nga xam ne dañoo atteindre l'éveil ahlil yaqda mu ne ñooñu waxuma la seeni jaamu de dama kaa waaye ñooñu seeni aadaat sax dafa wëlbatiku mujj doon ay jaamu ci yoon parce que ñooñu dañoo nekk ci benn ket waaw ci benn sàkku ci benn recherche dañuy wut dañuy wut gis nga lan la ñuy wut seen kër ma nga borom moo tax ñooñu dañuy bàyyi xel kon jëf ju ne dañ koy bàyyi xel jaamu ya ñu ngay bàyyi xel la làmboo biir baag biti ba charte yaag ponk yaag farata yaag gis nga ko ruuxu jaamu ga sellal ga nangu ga loolee lépp dañ koy bàyyi xel moo tax nga daan dégg kenn ci salaf mu daan wax naan aka neexoon mu leer ma ni sama borom nangul na ma donte ñaari ràkk ñu ne ko lu tax mu ne ndax ma yaakaar a bokk ci almuttaqin ndax suñ borom nee na innama yataqabbalu llahu min almuttaqin sunu borom de ñamuy nangul mooy almuttaqin ñooñee nga xam ni zawi taqwa ña nga xam ni dañoo am taqwa ñooñu la borom bi jalla wala di nangul mu ne kon aka neexoon ma xam ni doonte ñaari ràkka la sama boroom nangul na ma ko gis nga kon ñoom ni ñu doon yittewoo doon intéressé wu ci jëf ju ñu nangu gis nga amalan mutaqabbala waaye ñun maa laa saf ñun nañ ko jëf rek nan ko dóor jóge fi julli gi nan ko dóor jóge fi koor gi nan ko woor jóge fi gis nga xam-xamit duñ yittewoo al ilmu naafi xam-xam buy jëriñe déedéet na doon xam-xam rek donte xam-xam la boo xamante ni nii dañ naan la bon gestion des entreprises donte gestion des entreprises boobu yow entreprise ya ngay gérer carte xaalis lay def carte xaalis yow li jënti woo xam-xam bay jëriñe budul jëriñe yow daal na nga mën a amee as suñ lay jox ne la wala le diplôme bon gis nga nga takk sas karawaat am bureau boo mën a toog daal carte xaalis la ak xaalisu sàngara la ak xaalis bu lewul la alal ji dafa tilim loolu yëpp la jëntewu ko gis nga rizqan tayyiban kazalika day tàbbi foofu wërsëgu teewu dagan loolu it gis nga xooloo ca dara da ngay dégg sax ñu naan la xaalis amul xet noo ko amee baax na gis nga waaw loolu yëpp dafa bokk ci doxalinu ñu seytaane sadd ñi ginne sadd saddum ginne ay fànn la du ñuy daanu rek ñiy daanu rab kese la ginne sadd déedéet am na ñoo xam ne jinne da leen a bu yàgg moo tax soxlawul ci ñoom ñuy daanu non non parce que ñi ngi dox ci logique am dàll yi ñu sol dafa xaram yére yi ñu sol dafa xaram li ñuy lekk dafa xaram fi ñu dëkk dafa xaram oto bi ñuy dawal dafa xaram bureau ba ñu toog di liggéey dafa xaram seen biir ak biti kooku lan la ko iblis yi doye di ko daaneel naan da koy sadd hmm? jinne yi bu ñuy daaneel nit lu ñëw nii rek à l' aveuglette déedéet dafa am yu ñuy visé gis nga des fois dinañ fekk koo xam day góorgóorlu ci diina ñu koy cokkaas di ko daaneel ngir lan ngir jabolise wone fa image bu rafetul ne ah ki di julli kat di daanu mom ba defé mu ragal lu len julli wala yini dem ba tax des fois da nga deg yenn dekk yo xamni ne fi kenn du fi nodd bu nodd joté dañuy jël tabala teug motax di baye xel kon mbir yi ak am solo jamono tay nak baye ko xel yoyal yow daal na doon xaalis rek yow daal na nga jëf rek këpp këppal moom waaw yow tey xel jëf jë mbaa jaareel nga ci yoon yoonu nangu mbaa teg nga ko fa nga war a teg hmm? ma ngoog wallaahu almustaan kon gis nga ña nga xam ni ñoom ña nga ca yeewu teg jaamu ñooña seeni ibaadaat mooy seeni jaamu waxee su ko sax waaye seeni aadaat seen lekk ak seen naan ak yooyee yépp loola moom sax day yëkkatiku ca yéene ya ñu lal ca suuf gis nga jëm ci loo xamante ni nii dañ cee mën a witt di ca for ay yool إنما يتقبل الله من المتقين نسأل الله جل وعلا يجعلنا من المتقين بغرفة يكون موقعين وتكفي صلو بارام نيان بورم بجل وعلا مدفل نتوفيق دفل لنكو دفل نتيسير دفل لنكو دفل نعافية دفل لنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته